bari lu dul rekk xanaa wax sabab bi nga xamante ni moo dajale gannaaw bi ñu sante sant sunu kilifa gi di monsieur le préfet di ko feeñalal ormaam ak sunu maire monsieur Mass Diagne ci turu euh, Diagne Sy Mbengue santaale itam mbokki euh, mbokk yi ñu seqal liggéey bi ci Tivaouane mu di les membres du CDD service yi nga xamante ni ñoo ko composé yëpp ku ne ñëw teew pour rek taxawu saytu lii nga xamante ni sabab la ci daje bi mooy waajal euh, euh, xew-xew buy am mu di xew-xewu ndaw nekk feetu ndaw yi Sénégal ndaw yi jullit yëpp ndaw yi tariqa tijaniya ci bis boobu nga xamante ni ñu ngi koy def muy le lendemain de la tamxarit Ashura ku ne xam na ni Ashura fête la boo xamante ni fet bu am solo la ñenn ñi sax dañuy faral di jaawale ni moom mooy bis bu njëkk ci atu jullit yi waaye wax nañ ni juróom-ñeent juróom-ñeenteelu bis la di fukkeel ba di ashura mooy sababu wàccuwaayu weeru jullit yi gannaaw bi ñu gisee ni xew-xew yu bari dana ciy daje wax nañ ni yonent yu bari bis boobu la tombeel yàlla wan leen ci ay xew-xew yoo xamante ni xew-xew yu firndeel seen mission la ba melal nanguk ñaan ci doxalinu mission ba kon mën nañoo wax ni bés la mais bésu mag ñi la ah, bés boobu nag ci Tiwaawan sëriñ Mouhamadul Mansour xalif général des Tidianes yal na yàlla yokk leeram ak mbooleem dawi jullit moo waxoon ni bu jotee ñu di ko daje fii ci Tiwaawan ba nu dajee sëriñ Abdul Aziz rakkam sëriñ ba Haj Malik Abdul Aziz euh, recevoir ndawi tariqa bi euh, dalal leen jox leen li nga xamante ni mënul ñàkk mu di message yu xalifa bi jëm ci warteefu ndaw ci yoon wi nu tënku mu di ëttu Seydil Haj Malik daje boobu nag moom la ñu dajaloo pour waxtaane lu jëm ci wàccaayam ndax nañ ko def bu ne nañ ko wax moo koy jiitu waxtaane nañ ko ci njiital préfet monsieur Makan Mbeng eh, ñëpp teewe ko eh, ñu am ci nag yaakaar ndax waxtaan wi ni mu demee eh, point yi nga xamante ni war nañ koo aborder yëpp jëm ci wàllu li saytu organisation bi waxtaane nañ ko chef de service yi kenn ku ci ne joxe nga ci sa xalaat joxe nga ci itam sa garantie joxe nga ci itam sa sax lu lu lu lu lu kenn foogul woon ci ay taxawaay yoo xamante ni bëgg nañu bu ñu ko dooree ba jeexal ko mu génne ndam ndam loo xamante ni ndamal Sénégal lay doon ndam loo xamante ni ndamal l'islam bi yépp lay doon alhamdulilah ñu ngi kon jaajëfal képp koo xamante ni bàyyi nga sa lépp consacré ko à la dairatul muxtafina pour réussite bis bi nga xamante ni mën nañoo wax ni bisu président de la république la ndax mooy ki nu ko darajaale moo ko moom ndax moo njaboote Sénégal mooy ki nga xamante ni itam lépp ci moom lay dellu ñu joxoon ko ko sédde ko ko moom ak buuru Maroc ku ne xam na li nu boole nun euh, réew mii ak sax tariqa yii fi nekk di ay tariqa diine waaye surtout alaqat xaya yi nga xamante ni am na diggante réewu Maroc ak Sénégal excellence su seeni euh, relation yi dox te wax dëgg yàlla Tijaniya di ci jouer rôle bu amaa am solo ñoom lañu ko séddee ñu di ko méngoo bu jotee euh, ñu def ci taxawaay yoo xamante ni taxawaay yu màndargaa la ñu ngi leen di jaajëfal te sant ñaan yàlla na leen yàlla gën a dooleel te bàyyi leen euh, ci kanamu njaboot yi ba li nga xamante ni mooy seen mission ñu mën ko doxal waaye doxal ko ak ndam ñu delluwaat nag am mbégte lool dañu daan faral di convoqué ñaari convocation bii ñu boole ñaar yëpp bu njëkk bi mooy membre CDD bi daje ñaareel ba ñu daan convoqué beneen point de presse waaye ñu ni jot dafa xawa ñàkk te lu ne nga def ko benn yoon moo lay gën a noppal ñu boole ñaari journaliste yi ñëw couvrir CDD bi fekkewaale discussion wu li ñu waxtaane waaye itam ñu joxaale leen kàddu goo xamante ni kàddu cant lay doon waaye kàddu itam leeral li indi sabab bi Euh, ñaan leen it ñoom it bu ñu delloo ba ci seeni ëtti xibaar ñu mën faa génne li nga xamante ni mënul ñàkk ci euh, euh, jotal ko mu nekk information bi ku nekk war a am pour wàccaayu bis bi fa tabaarakallah loolu yëpp waxtaane nañ ko ñoom it ñu jox leen ci li nga xamante ni lu mënul ñàkk la ñu wax leen ci lu mënul ñàkk Euh, daje boobu ñu daan def nga xamante ni dañ ko daan wax lii ñi nga xamante ni moom lañ mooy rek li sabab bis bi daje bi ndax daje boo gis am na sabab sababu ndawi tariqa bi dajaloo ci Tiwaawan dana leen may ñu mën a daje feddali seenu njaboot delluwaat profité ci Tiwaawan envergure bi nga xamante ni moom la am envergure spirituelle euh, sociale économique ñu jéem a profité itam dégluwaale kilifa yi ñu jox ñu tegtal yi nga xamante ni ndaw dana ca mën a dëgg mën a taxaw taxawaay bi nu séntu ci moom ci péncam ci réewam ci diineem ci tariqaam boole caag melo yi nga xamante ni moo ko war a gunge nga xamante ne ay melo yu taaru lay doon ñu àndaale pour doxal parce que ku ne xam na ni réew mi di Sénégal su dee am na dara lu ñuy mën a am muy puukare mooy am mag ñu baax ñu yàlla may ci wàllu jikko ci wàllu éthique morale ñu am ca ñoo xamante ni wax dëgg yàlla wareesu leen wuti faneen parce que am nañ leen ba noppi loolu nag la bëgg ndaw yi bu ñu ñëwee déglu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mu jox leen message u xalifa bi ñu mën ko taataan taataane ko pour mu nekk beneen cëslaayu liggéey topp bi liggéey jëm ci li nu jëm ci defar réew mi jëm ci li nu jëm ci doxalin wi nga xamante ni moom la tariqa bi wootewoo woo pour jàppale ko kilifa àdduna yi jëm ci seen warteef ci njaboot gi loolu nag mu laaj fu ne ci réew mi ndaw dana fa jóge ay group yi ndaw ay dawaayir àndandoog ak mag ña mën a jàppandi pour gunge leen fu ne ci su région bi diggante Mauritanie Gambie Guinée-Bissau dana am ñu ñëw teewe si ko Eh, région yi gën a reculé barab yi gën a sori ci réew mi dana am ñu fay jóge di ñëw loolu ci lañuy sàkkuwaale itam ndimbal loo xamante ni dana leen mën a may ñu mën a yegg si ci dal yegg si ci jàmm ànd ak jàmm ci yoon wi yàlla na ko yàlla dogal waaye surtout ñu ñaan chauffeur yi nga xamante ni ñooy yëpp njaboot yi ñu def nànk ànd ak dal ci yoon eh, jàppale ko kilifa yi ci seeni njaboot ñëw yegg si jàmm ak Tiwaawoon ànd ak lu mu war a àndal ci daluwaayu jàmm ko defee loolu nag ñu ngi sàkku ci ñoom ñu ñëw njaboot yi ñu sàkku ci ñoom seen tenue maanaam seen melokaan seen yar seen dal ak tekkaaral gi mu war a àndal ndax am na foo xamante ni boo amee pasteefu dem fa war ngaa jël lépp loo xamante ni lu koy gunge la ba nga mën a yegg te yar lum la mayul laneen du la ko may yiwte lum la mayul laneen du la ko may ñu sàkku nag ci ñoom ñoo ñuy ñëw ñu waajal yoon wi waajale ko yéene bu rafet waajale ko taxawaay ak mat waajale ko yar ànd ak yar ci yoon wi fu ñu yegg fu nekk bu fekkee ni kilifaa nga fa taxaw ci wàllu yoon wi te ñoom lañu dénk ñu saytu lu jëm ci wàllu yoon wi ñu méngale seen jëf ak li nga xamante ni moom la kilifa yi teg muy teguwaay bu rafet ko defee àndandoo ak orma àndandoo ak dalga ba yegg si Tiwaawan ba delluwaat ci seeni kër bu ñu toogee Tiwaawan lañ fi war a toog àndandoo ak lépp loo xamante ni lu koy rafetal la yal na yàlla may nu nu yegg ci ak jàmm lii daal mën naa wax ni suñu mënee wax la ci des xëy na bu ñu taxawee bés ba ci kanamu sëriñ Abdul Aziz daañu ko gën a wax lu mënul ñàkk ci mbooloo mi ak taxawaayam ak yi nga xamante ni def na ko fi diggante daaw ak ren diggante daaw ak ren li nga xamante ni joxoon nañ ko ko ci ay tegtal mu mën koo joxe dañu ni xëy na wax ko journaliste si mën naa nekk waaye dañoo bëgg a bàyyi ba ñoom kilifa yi ñu teew ñu wax ko ci seen kanam ku koy jël ci ñoom mën koo jël pour mën koo delloo njaboot gi ñu mën koo dégg ni mu ware bu lii daal su ma juumul ci gàttal mooy li mënul woon ñàkk pour ñu tàmbalee ko liggéey bi gannaaw bi ñu sante ñëpp euh, jaajëfal euh, sunu autorité bi di monsieur le préfet avec respect bi nga xamante ni moo war ci dayoom jox ko ko joxaale ko njiitu réew mi mu fi teewal ak gouvernement yëpp waaye itam feeñal aussi sunu cofeel ak sunu Pastef jëmale ko ci sunu maire bi nga xamante ni daa iman sur place lépp lu population Tivaouane soxla mooy taxaw taxawee ko ba lépp rafet moom it yàlla na yàlla dëgëral leen te dolli leen ndam lii daal laa am lu ma mënul woon a ñàkk wax ñu ngi jéggal bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.